asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu waaw ñu leen di nuyu yéen ñëpp leen ziare di leen jaajëfal ci coono bi depuis bi affaire bi amee ba léegi ah gis nañ ci seen taxawaay kenn ku ci nekk fa nga ci féete kuñ gis ak kuñ gis kenn ku nekk yaa nga taxaw fa nga war a féete yaakaar naa jotaay bi ñëw ci membre ñi nga xamante ne ñoom ñooy famille Abdou Faye waroon nañu ëpp nii mais ñeneen ni mu ko waxee sànq ñii dañoo nekk fii ñii nekk ñoo a waaw ba tax na ñun tam léegi mën nañoo ne comme niñ ko ñëpp jëlee rek noonu lañ ko jëlee ndax man mercredi lañ ma woo ne ma jàpp nañ ko dimanche ñu woo ma di bërki dem noonu rakam bi mu woo mu woo ma bi ma rakam bi woowee ne ma jàpp nañ ko léegi mercredi bi ñu woo ma encore ne ma ma da deena waaw mais àllarba mu ma woo rakam bi moo mu woo ne ma jàpp nañ ko dimaas mu dem seeti ko ñu ne ko deena ma ne ko foo jëlee lool ma ne foo jëlee lool ci nouvelle boobu noonu man ci réseaux sociaux yi laa ko jëlee man nag man maay papaam affaire bi nag meetuñu lool dee na dee goo xamante ne nii moom xamuñ ci lan la dee mu metti ñu lool waaw ñu teg ci itam di ko tuumaal naan dafa xaru te ñun loolu mu wax dëgg yàlla doyuñu tuumaal bu ñuy wax doyuñu ñu bëgg a jël mbir yëpp jébbal ko yoon bu ko defee moom ci boppam mu def ci ay déclaration yoo xamante ne ñun suñ bopp dinañ xam ne lii kat fi mbir mi féete waaw dinañ ko topp nag di ko saytu ba fañ ci mën a yem waaw ñu ngi woo ñëpp nag dale ko ci kaw président de la république ba ci ñi ci suuf ñëpp ñu ngi leen di woo kenn ku ci nekk foo ñu ci mën a jàppale noonu ci mën a jàppale nga jàppale si bu mbir mi leer affaire bi métti na méttiwaay boo xamante ne bu féeti woon nañu foo ne mën nañ luñ ci waxati mënatuñoo wax ba jot ko mënatuñoo wax wax ba am lu toll abdu waaw comme ñàkk nañ ko nag ñàkkin boo xamante ne ne amuñ ci lu ñu doy ñu ngi woo ñëpp ñu xool mbir mi buñ am luñ ci doy ndax bu dul moom itam dañ koy def ngir ñeneen itam comme moom bosam jàll na bu pare ëllëg si biir mën na doon keneen ci ñun ñii kon ñoo ngi def intervention boo xamante ni dala ko ci kaw ba ci suuf yëpp képp koo xamante ne am nga loo ñu mën a dimbalee ci jàpp ne ba mbir mi leer daal te lii bañatee am moom wax dëgg yàlla moo ñu gën a loon nga jàpp lañu ci ñoo ngi leen di sant di leen gërëm jërëjëf Baye Ali